salaamaaleykum mbokk sénégalais yi mbokki presse bi mbokki àdduna yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan jàpp naa ne ñi fi jaar résumé nañ lu bari ci li xewoon waaye dafa tolloog nag acte yi dafa nekk acte yoo xam ne yu naa la acte la yoo xam ne ay acte yu ñaaw la ndax dafa mel ni ñu bari xamuñ li xew man yàlla suturaal na ma action yi bi muy am man maa ngi yéeg ci kaw oto Serigne Mara Niass mi di seen action yi gis ngeen Cheikh Bara Ndiaye mi nga xam ne yàlla suñu borom daf koo dimbale ci campagne électorale yi mu liggéey fi liggéey bu ama am solo mboolem sene Sénégalais yi fu mu génn au ñun ñuy campagne nit ñi nit ñi ñoon ñoo ñuy campagne pour ñu ñëw ci ñoom ñun amuñ problème pour dajale ay nit parce que nit ñi ñoom ñoo ñuy campagne Cheikh Bara ak Serigne Mara dañ cee liggéey liggéey bu am a am solo. léegi nag loolu ñun xam nañu ne am na ñu muy déranger mais ki def jëf ji kooku nit ku bon la ndax li mu bëggoon dafa bëggoon rey seex Bara Ndiaye mi rey laa wax de rey Serigne Mara Niass parce que oto bi mu yoroon bi ñu accéléré sëfëru Cheikh Bara bi moo am intelligence su dévier ko mu des Serigne Mara sécurité ñoom ñoo ko nguufaanu dugal ko ci biir otoom léegi ñu engagé mbedd moo xam ne dafa lëndëm duñ am ci ñun accès. loolu bokk na ci ñu luñ musal léegi xale yi fa des nag oto yi ñenn ñi dañu jaar seen kaw barki démb lañ doon feete mois de huit mars ñan ñoo ko moom du suñu bokki soxna ñu jàpp ay jigéen comme ñii toroxal leen dóor leen traumatisé leen am na ci ñoo xam ne dañoo disparaître kenn gisagu leen am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci hôpital yi tëdd te responsabilité ki def loolu mooy Mamadou jaañ Fada koo xam ne da nga ne homme politique nga nit nga koo xam ne daaru ngay représenté ay kilifa nekk fa di jàkkaarloog yow ngay jëf-jëf ju ñaaw jooju loolu dañ koo war a arrêté bu ko arrêté wul Cheikh lépp lu mu war a wax ak li mu war a def ci ay plainte mu ngi ci programme bi mi ngi ciy waxtaan ak ay awokaam bu fekkee jëflante wu koog moom ñoom jeunesse daaru musti bi ma gis taxaw nañ taxawaay boo xam ne daañu ko jëflanteeg moom ndax réew mi dafa mel ni amatul yoon jamono bi loolu di xewee police ak gendarmerie ñi ngi taxaw di jàkkaarloog ñun dem nañ wax ak ñoom yiyu njàpp ci waxuñu ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall war a wax ci loolu war a alerté candidat yi am nañu droit campagne campagne priorité la ñun ñu nekk ci suñu campagne di wax nit ñi programme di wax nit ñi lu ñu gëm yow nga bëgg a tëdd sab saal ak sa néeg ba élection yi jege nga bëgg a jël say 5000 ak say 10 000 bëgg a ger nit ñi nit ñi ne loolu du fi amee nga gis yëngu-yëngu bi ni mu amee doole askan wi nit ñu joxee bott bopp loolu déranger la nga ne loolu dafi amee ma ne loolu dafay ame campagne bi day wéy di am Cheikh Bara day wéy di yëngal dëkk bi Serigne Mara Niass day wéy di yëngal dëkk bi te loolu duñ ci man dara te incha allahu rabbi dimanche bii di ñëw seen nguur day jeex da ngeen di dem nu mu gën a gaawe te mboolem xeetu ñaawteef yi nga xam ne def ngeen ko dal ci suñu kaw danañu ko régler ak yéen tey waaj nan takku nañ ba dëgër waaj nan ba jekk dañuy duggaat ci biir dëkk bi képp ku jàkkaarloog ñun daanu ko jëflanteeg yow

maa ngi leen di nuyu daanaka wax ji sax mënoon naa bañ a ñàkk ndax gaa ñi wax nañ yëpp comme que dañoo nekk ci liggéey bi te ki jëf-jëf ji xëy na dafa jëf ni nga xam ne noonu la toll ndax ñun bi ñu jógee ba tey keroog bi campagne bi ubbee ci mil bi ba sunu joon yàlla tey jii man mii di wax ak yéen amul benn bis boo xam ne dem naa ko ci sama njaboot Bawa batay tey déwuma ci sama njaboot ngir lan réew mi déwuma ci sama njaboot ngir lan bëgg senegal mu jakk waye demb man de manon na ma faatu man ndax bi ma ci kaw auto bi ba jigo jappuma dima di dima wacce bi ma gën a jaaxal mooy nit ku yor fetal ak lu fi ñor dañ koy màcc di tiire ma ne waaye lii nu mu demee nii nga xam ne ku ko man di jëf Mamadou Diagne Fada bu fekkente ne yow yaa jëf-jëf ji na la wóor ne bàyyi naa la man personnel ak yàlla te lii nga ma teg man dinaa dugg ci sa biir kër jëflante ak say doom yi nga jur man maa la ko amul kenn ko ci man dara ku yàlla bind ndax mënoo di tooñ nit ñi toog na yow ak sa njaboot da ngeen di am jàmm ñun kenn du ñu soqi balu fetal ndax jiwuñu la loolu ñun xamuñu la sax liggéey bii ñuy def nag bu dee bakkan la man dama doon ñaan yàlla bi bal bi dal ma ndax man ñi ci dee gënuma leen ak ñi ci tëj kaso te lii ab xare la fowuñu foluwuñ nit ñii di ay kilifa dagg seen yitte di topp caravane yi nit ñi nekk ci weeru koor amoo dara loo leen di yéene lu dul ay balu fetal ak ay xeer di toj seeni oto di tóor ay jigéen ngir lan nguurub àdduna loolu dara da koo jarul nañ leen delloo siwaat xel yi ñu xam ne ñii ku leen ba ak réew mi lii képp lañu xam mooy lan torturer sénégalais yi président Ousmane Sonko nag wàccoon na ak ñun yee nañu tey ba dëkk boo dugg xam nga lu ñu lay wax jërul woon ngeen di ñëw ñun noppi nañ loolu nag Peres bi mu koy liggéey booba demagul ci kaso bi te ma waxaat leen lu doy waar ci caravane bii nga xam ne doon nañ ko def Mor parking nga xam ne lii dafa nekk mbir moo xam ne ñi ko ñi ko teg programme bi ma wax leen Sénégal nga xam ne jéego bi muy dox Cheikh Bara mi nga xam ne jël na exemple laay jël te noonu la demee def ci ay million Mor mi ci def ay millions caravane boo xam ne ñu ko initié ak ñi ci def seen alal matuñu trois personnes quatre personnes yëkkati ay millions jël ay ndaw jël ay matériel dugg ci àll bi duñ ay politiciens coalition jommaay Faye ñuy liggéeyal président Ousmane Sonko ñooñu bu dul dara sax nga xam ne duñ ay politiciens lébaluñ la loolu yow mënoo ci ñoom dara lu dul lan di diir ay bal man Cheikh Bara dama ne ko bi ma wàccee li ma gis. bal bii daaw di ñëw ma maa maa togge woon ci côté droite bi man lay njëkk ay rey laa rey ndax booba mbedd mi ñu génne ba dal ci suñu kaw jëf ju ñaawe noonu képp ku ko xeeb wala fada xaw ma fada xaw ma fadam maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla àtteeg fadam Mamadou Diagne fada ndax jëf jii mu jëf dagg suñu caravane bii biig ba tey nelawuma amul kenn ku nelaw ñun ñii ñu tëj suñu kër démb ba tey nelawuñ barke alxuraan jóge daaru mukti ay gumba ngi wër àll boobu yépp réeruñu xëdduñu suñuy njabootam ñuy woon naan ba xam dee na ñoom dund nañ moom mu tëdd ci ay kilimam ak ay jabaram ak di gundaandaan waaye billaahi doo am jàmm lii nga ñu tooñ nii torture ñu ñi ngi ñaan ci barket weeru koor gii hmm? ñaan nit de waaye tooñ nañu nag maa ngi jéggalu ci wax ji man manoon na maa sax bañ a jël kàddu bàyyi mbay jërëjëf jërëjëf